dañ koy tàmbaleeg euh, yéenekaay bii di Sud Quotidien ñoom nag dañoo xëyee ak euh, këru liggéeykaay yi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum euh, ciment lu su mel ni Dangote wala su ko sim ñu ne ñoom nag boo mayewul ci suux la ñu jëm ñëwaat nañ itam ci li nga xam ne moom mooy trophée coupe du monde bi nga xam ne day amal ab tournée ngir nag ñu ngi koy xaar fii ci Sénégal le 6 septembre. le quotidien yéen kay dañoo ñëw ci euh, li nga xam ne moom mooy euh, mbënd yi am ci dëkk bi ñu ne nag euh, fi nekk nii nag nguuru ko Sénégal ñu ngi sax waaj daal dund loo xam ne ni lu tar lay doon si jamono boo xam ne kon fi mu nekk nii ñu jëlee ndox yi si yenn box yi mu ngi doon ay jafe-jafe ñëwaat nañ itam ci daq yi nga xam ne moom moo am fële ca expression ak daal coow nga xam ne fi mu nekk nii kon. jur na ko euh, ci li nga xam ne euh, moom mooy euh, réew mi ñëwaat nañ itam ci opposant bi di Raila Odinga fi mu nekk nii nag gannaaw bi nga xam ne élection présidentielle da caa jël deuxième te nanguwul résultat ya déposé na ab plainte muy yaakaar nag ndax dinañ annulé yooyu la élection le soleil dafa ñëw ci li nga xam ne moom mooy exportation bu mango am na nag ay eh, jafe-jafe gannaaw bi nga xam ne loolu ñuy woowee mouche de fruits muy nag ay eh, eh, xeetu weñ yoo xam ne daal dañuy yàq mango bi ñu ne moo affecté fi mu nekk kon li nga xam ne moom mooy mango bi wante itam ñëwaat ci quatorzième législature muy assemblée nationale bu yees ñu war a taxawal ak nga xam ne moo leen di xaar bés bi le jour dañoo ñëwaat ci partage poste bu assemblée nationale maanaam poste yi nga xam ne moom lañu war a séddale ci différentes coalitions yi. foofu la ca assemblée nationale lu ci mel ni bureau ba ak commission ya ak daal séddale boobu na mu war a demee ba tey itam ñëwaat nañ ci ab reportage bu ñu amal eh, ci seeraayu soble seen ñu ne fi mu nekk nii nag ay palaa yu si mel ni yaasa Diouf wala c'est bon moom mooy wër yi dinañ leen gëj a lekk. libération yenn kaay dañoo ñëw ci mbirum faux eh, billets yooyu nga xam ne moo taxoon teg loxo eh, kii di Bougazelli ñu ne nag fi mu nekk nii te tegoon loxo yëpp libéré nañ man wante itam ñëwaat nañ ci mbirum euh, SAR Senelec ak Petrosen ñu ne fi mu nekk nii nag ñoom gën nañ leen yombalal li moom mooy wàllum njënd ak jaay gannaaw bi nga xam ne sax fi mu nekk nii mën nañu def yooyu activité te sax ñu jaar ci code des marchés ñëwaat nañ itam ci ministre de l'intérieur mii di Antoine Diome nga xam ne fi mu nekk nii nag euh, jóg na euh, sol dàllam ngir dugg ci dëkk bi xool ndox yu yi. nañ leen leen di mën a kon jëlee fa ne las yenekaay ba léegi ci euh, ndox yu taay yi bëri ci dëkk bi bi taw yi bëri amee ci la ñu dikkaat ñu nag fi nekk nii daal euh, état ba génne na euh, maanaam moyens yu mag ya maanaam génne na daal li nga xam ne moo gën rëy ci loo xam am na ko doole pour mën daal ndox yooyu ñu dindi leen fa nga xam ne foofu la nekk. enquête yéen kaay dañoo ñëw si ñetti at gannaaw bi Amath Dansokho génnee àdduna ak léegi moom moomu nekkoon leader bu PIT ñu ne nag ana jàngat ban seetlu la ci am ñu nag seq waxtaan ak ki nga xam ne ab doomam la euh, bu góor ñëwaat nañ itam ci euh, Yankoba Diatara mi nga xam ne nag euh, moom àdduna jëmale ci jafe-jafe am këru liggéeykaay benn expression ak ñañ fa ñañ fa dàq mu ne nag duñu dàq kenn mu ngay was na ñaari parti ñu seq waxtaan les échos dañoo ñëw ci Mayoro Faye ak euh, Cheikh Mbacké Dolly ñu ne gannaaw ba ñu génnee PDS nag fi nekk nii daal seen parti bopp sax lañ ne dinañ ko samp ngir kon mën a euh, jàmmarloo ak euh, ñii di PDS di seen parti boobu kon ñu ne kon man itam ñëwaat nañ ci juróomi fan gannaaw bi Ousmane defee déclaration boobu la ñu ne nag waa Pastef ñu ngi joxoñ baaraamu tuuma nee nañ nag foofu la ca Palais am na ab xam ne kon amoon na te les sa jublu woon mooy bëgg a nasaxal candidature Ousmane Sonko ci élection présidentielle bu 2024. l'évidence quotidienne dafa ñëwaat ci coow la am ci expression Sénégal ak ñooñ fa daqee ñu ne euh, directeur général bu ARTP fi mu nekk nii mu ngi cay dox ay tànku jàmm wante itam ñëwaat nañ ci APR ak PDS mi ñu gis ne daal seen ànd booy xool loo xam ne lu mënul nekk la. le mandat yéenekaay dañoo ñëw ci euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy magistrat yu Sénégal ñoom nag euh, artu nañ daal ci seen ku nekkin ak seen ku la ñuy liggéeyee loolu nag la bëgg mu gën a ñëw kon ba tax ñu ne ñoom def nañ seen plaidoirie bopp ñëwaat nañ itam ci ànd gësëm bi nga xam ne ñu ne daal dinañu amal ab manifestation fële ca Thiès ngir daal ñu libéré ñi nga xam ne ñoom ñooy seen ñooñ ñi nga xam ne kon Euh, jàpp nañ leen ba ci mbirum hôpital bu euh, Tivaouane Walf Quotidien dañoo ñëw nag ci euh, troisième mandat ngir fi mu nekk nii nag waa waa APR ñu ngi xalal yoon seen ko leader di président Macky Sall ñëwaat nañ itam ci Antoine Diome ak daal njàqare yi nga xam ne am na ko si jamono joo xam ne fi mu nekk nii ndox yi sonal na waa Sénégal. populaire nag dañoo ñëw bokk si bopp ci li nga xam ne moom mooy paralysie maanaam ay jafe-jafe yoo xam ne daal dina am ci lii di collectivité territoriales yi gannaaw bi nga xam ne kon liggéeykat ya fa nekk ñoom ñooy sumb ab gréewu ñetti fan ñëwaat nañ itam ci ay risque de débordement muy fleuve Sénégal ak fleuve Gambie bi ñu njortu ne kon boo maywul ndox ya dina génn ba dugg li nga xam ne kon moom mooy kër nga xam ne jege na ko. l' observateur nag dañoo ñëw ci ab jàngat boo xam ne dañ koo amal ci kër yi nga xam ne foofu la ñuy euh, daal euh, toppatoo ñi nga xam ne ñoom ñoo lu ñuy woowee ay centre de redressement ñu ne nag ay mbir yu doy waar moo fay xew yenn saa sax ñoo ne dañ leen di dóor ba faat leen ñëwaat nañ itam ci li nga xam ne moom mooy euh, PDS bi ñu jàpp ne daal fi nekk nii ci defarwaat la ñu nekk pour waajal li nga xam ne moom mooy élection. présidentielle bu 2024 l'info yéene kaay dañoo ñëw ci euh, bureau de Mangoukounou euh, ñi nga xam ne bokk nañ ci MFDC ñoom nag ñu ne accord yi nga xam ne amal nañ ko fële ca Bissau engagé wu leen te sax ñoom d'accord ñu ci yooyu accord yi nga xam ne ab provisoire moom moo ko euh, taxawal ñëwaat nañ itam ci Yankhoba Diattara mi ngi ne nag moom nee na bloqué directeur général bu Expresso ko doo dàq kenn wante it euh, woote na ñaari parti ngir ñu séq waxtaan tribune yéene kaay dañoo ñëw ci Karim Wade nag ak ñibbi séem fii ci Ndakaaru ñu ne moom nag daal bëggee mbiree yomb dina def daal comme Idi wala euh, Pape Diop dikkaat nañ itam ci naka la waa Qatar bëggee woon mu dellusi fii ci Sénégal ak na ko njiitu réew mi lànkee euh, ba léegi ñëwaat nañ ci Assimi Goïta mi nga xam ab premier euh, ministre muy Abdoulaye Maïga moom la tabb ngir mu remplacer nga xam ne mooy Assimi ki nga xam ne kon mooy Choguel euh, Maïga ba fa nekkoon premier ministre te nga xam ne euh, dafa tawat réew mi quotidien dañoo ñëw nag ci li nga xam ne mooy nouvelle technologie muy internet beeg portable smartphone yi ak yooyu ñu ne daal ak ni mu indi ay yàqu-yàqu ci li nga xam ne moom mooy dundinu. Euh, doomu aadama yi ay jàngat nag ñu dikkaat ci ay jàngat ci ñoo xam ne daal ay euh, mbir yooyu daal di xew ci internet ci internet ak réseaux sociaux yi indil na ay jafe-jafe ci seen wàllub euh, dund. stade yenn kaay nag dañoo ñëw ci suñu gaynde gi di Sadio Mané moom nag ñu gis ne daal def na ab tàmbali bu am solo fële ca Bayern bi nga xam ne fa la nekk ñu ne nag fi mu nekk nii booy xool sax amaguñ na ñetti but. yoo xam ne kon manqué foofu ko ca euh, Bayern na dañ koy jeexalee ak yéen kaay bii di sunu lamb ñoom nag dañoo ñëw ci Bécaye Mbaye ak nag euh, nee na CNG dafa war a daal tere ñi ñuy woowee ay marabu encablé maanaam ñoo xam ne sax euh, dañuy doon ay sëriñ sëriñ yu mbër ci lamb ji wante dañuy làqatu ngir bañ a ne ay sëriñ lañu wax na itam. àdduna itam jëmale daal ak lu bëri ci li nga xam ne moom mooy wàllum euh, làmb ak daal la wax boo mayul bëre euh, dina euh, dee fii ci Sénégal ñëwaat nañ itam ci promoteur yi nga xam ne fi mu nekk nag ñu ngay bi nga xamee ne lii di prix wu mbër yi wala boog prix licence su promoteur yi dafa yokk si jamono jooju kon ñi nga xam ne ñooy promoteur yi di ŋàññi loolu. di attaqué kon euh, li nga xam ne moom mooy CNG yi la ñu doon denc xibaar am seen teewlu di leen jox déedéet ëllëg jaa ngeen jëf.